non mais kontaan naa ci yow tey de. wallaay mais j'ai dit. Mhm. mais c'est dit que chérie chérie est-ce que est-ce que tu me mets heureux. ah ouais. je, je suis le, le, le, le monsieur le plus heureux du monde. Ouais, ça se voit. mais chérie du mu fay tuuti ah. non kontaan naa ci yow quoi. non mais du dara du dara du dara du dara. li nga def yëpp tey pour waaw waaw. ma woon waaw. nga bàyyee ko. yee. waaw loolu <laughs> wax lii. dina bàyyeeku ma wax lii. dina te nii ma la débarrassé la yi nga xamante ne. waaw waaw rafet la def ko. moo xam ne jugal Sénégal. non kii non kii koy coppi. Oh. Éthiopie Éthiopie ma génn rafet na.